wa man biha daxala fi amrin fala yakunu xaa'iban wala munsafila yaa rabbana xam li bi xàkkil kawsar yi ne xayaatin ujuri kasri ndog yi de moom ni ko gisee nii rek ni ko defe ci positif ak ab yar ak teggin ak ndigal gi nga bi sëñ bu ñëwee waxtaan ak sëñ Cheikh lii jàngale ak Baye Fall nga ni dañoo bëgg ñaari baat man la sa ci ñu de moom la ñu àndee muy suñu kilifa yàlla dugal ñu lijjanti ko ba nga xam te nag ñoom ñaan na mën ngeen a ji li ci les nag sama diggante waa Hizbut Tarqiyyah waa Daara Jee waaye ndigal lañu fi indi woon nag topp nañu ko ba sëñ bi ñaanal nañu nu war a waxtaan waxtaanu murit nag maa ngi yéen mbokk yi moom. maam maam si Ibrahima Fall Baabul Muridiina borom Tuubaa Xaadimu Rasuul moo ko ci joxoon ndigal mi ngi tàmbalee nag diggante 1916 jëm 1917 ndax bi maam si Ibrahima Fall nekkee Thiès borom Tuubaa ñibbi si njëriñ 1912 ànd ak juróomi doomam yu góor jóge jóge ci yéen Jolof ak doomam ju jigéen akub jarbaatam ndax bi borom Touba ñëwee Jolof ci décret gouverneur général waaye nag ci diggante maam ci Ibrahima Fall Baabul Muridiina te maam borom Touba fu mu mës a ne ci Sénégal maam ci Ibrahima Fall ko sancal te wama galfan na la def benn recrutement moom maam ci Ibrahima Fall sëriñ Fallu Fall ab taawam sëriñ Mamadou Moustapha Fall doomam sëriñ Basiru Fall doomam sëriñ Momar Talla Fall doomam sëriñ Assane Xëri Diop muy mooy mooy mag sëñ Mbàkke Fall mi jur sëñ Bésir Fall alxuraan yal na yàlla yokk leeram ak bàjjen Fall Fall Cheikh seen mag ju jigéen ak ak bàjjen Bousso Ndiaye di jarbaatu maam si Ibrahima Fall ñoo sant daara yi ci nekk fa ku ci juróomi at mu ñu indi waaye leen njëriñ nombre bi nga xamante ni moom la commandant bi waxal ni Cheikh ni ci kër gi nombre boobee njobootu maam Cheikh Ibra Fall googu ca la ñu bokk ci la ñu limaale. waaye bi mu ñëwee nag njaari 1912 maam Cheikh Ibrahima Fall jóge na Thiès ñëw dalal ko Mbàkke ci jëmmi boppam daal di delluwaat Thiès nag kulli yow min mooy togg ay añ di ko sëf ci saxaar ñuy wax régulier di ko indi njaarim ndax jàpp na ni saa bokkeek borom Touba am réew njëlul kër ga moom la war añ yooye ñu di ko togg ba bis ku baax ki woolu maam si Ibrahima Fall mu daal di tuxoo kees fekk si ko njaarim 1916 sanc fa ñaari kër tudde génn kër ga Makkatul Mukarram tudde gi leen kër ga madinatul munawwar ba mu defee loolu ku baax daal di woolu nag mu ànd ak mbooloo sëñ ma Samba Ndiaye wàqe ca la sëñ Ndiaye Rokhaya ca la sëñ Mudloo Cheikh Seef ca la foto maam si Ibrahima Fall bi kooku yor téeri dënn mooy sëñ Seef boo gisee nag ñu ne ko Cheikh Seef moom la maam si Ibrahima Fall ba mu sëncee ñaari quartier yooyee madinatul munawwar ak makkatal mukarram moom la defal chef de quartier ya ba noppi nag di ab seex ñu naa ko suñu mëdloo seex seef ak sëñ Yaaram Mbay ku baax ki woolu ko digg ba cëg ni ko Ibra Faal mu ni Mbàkke mu ni ko damay am aw gan ëllëg te bëgg nga toggal leen ay reer daal di koy ñaanal mu wëlbatiku saanam ci Ibra Faal nag daawul wax te génnul suufu kër gu mag ce war ma ji mu war maal borom Tuuba Xaadimu Rasuul ba mu ñëwee nag ba dugg suufu ak Mérina daal ni jëtub taxaw daal ni ma Samba Ndiaye mu ni faal mu ne ko lu ko baax ki wax mu ne ko laaj ko yaaram mu ne yaaram mu ni faal mu ne ko lu ko baax ki wax mu ne woo baax dafa wax ni day am ëllëg aw gan bëgg nga toggal leen ay reer wax ko genn gan wax ko benn reer mu ne ko yaara mu ko faal mu ne ko bindal ma tànk sëñ yaara mbay daal di bind taatoom bi ak keef mu ne ko lim ko mooy adat ko sëñ yaara mbay ni ko taatoom bi gi ñeenti téeméer la keef gi ñaar fukk la mu ne ko muy ñeenti téeméer ñaar fukk mu ne ko waaw ne ko wàññi ko doom te bindal ma tànk sëñ yaara mbay daa di far taatoom bi gi daal di bind taa tànk wala di ko taate daroo ne ko taa tànk juróom-ñeent la ceeb gi ñaar fukk mu ne ko ñaar fukk mu ne ko ñaar fukk juróom-ñeent mu ne ko waaw dikk ba cëg mu ne ko yaaram mu faal mu ne ko tey la ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ca soxbaan suba la ramadan di teru yaaram mu ne ko faal mu ne ko gan ñoo ñu sëñ Bambay wax bisi weeru koor yee ay ndogu la may toggaloo fi ñuy xamee nag li sëñ Saliou Mbacke daan wax naan saabaa ci Ibrahima Fall ak ku baax ki duñu ñaar kenn nañu sëñ Abdoul Ahad moo ne waxe ninu sëñ Abdoul Ahad mi sëñ Tuubaa ni maa ngi dem bàyyi leen ak seen coowul weer man mi nga xamante ni soxbaan bu daan dem damay tàggu ramadan bu dee ñëw damay nuyu man maa ngi dem bàyyi leen seen coowul weer maam ci Ibrahima Fall noonu la demee man booba soxbaan tàggu na ko ni ko tey laa jeexal waaye ramadan tàggu na ko ni ko suba lay ñëw digg bëccëg ñooñu nag jeex nañu ni ko suba la dama daan di teru doom sëñ Bamba ay ndogu la may toggaloo ndogu yii ma sëñ Bamba toggaloo nag ku ma ci defal lu toll ni ab tànk danaa la ci defal loo xam ne doo yàqu adduna doo yàqu àllaaxira ab tànk nag mooy dërëm bu ñu xaaj fukki yoon mooy cinquante centimes ab dërëm juróomi fifteen ab fifteen ñaari tànk la kon fukki tànk mooy benn dërëm sa amat si Ibrahima Fall ni ku ko defal ci ndogu yi la toll noonu dinaa la defal loo xam ne doo yàqu adduna doo yàqu àllaaxira waxul jox nag jox ci defal la bokk xolib soble ci defal la bokk xambub taal ci defal la bokk rootim ndox ci defal la bokk lépp waaye ndogu yi daal ku ma ci defal lu toll ni ab tànk dinaa la ci defal loo xam doo yàqu adduna doo yàqu àllaaxira di ko togg fukki ndab ak ñaar ak suppeeru ginaar ba 1927 ku baax ki dem mu di ko togg fukki ndab ak ñaar ak suppeeru ginaar ba ni 1930 maam ci Ibrahima Fall dem Serigne Mamadou Moustapha Fall magam ji baax ja jël ko 31 di ko togg ba 1900. fukki ndab ak ñaar ak sa pérob ginaar ba 1945 di ko jox sëñ Modou Moustapha Mbacké alayhi salaatu wasalaam waaye nag di ko baax ci demee 1927 saamam Ibrahima Fall bi mu ko togg ba 30 nag sëñ Moustapha Mbacké la ko doon jox mu daal di jël xilaafa gi teg ci loxo doomam ju baax ji sëñ Modou Moustapha Fall mu di ko togg 1930 ba 1945 fukki ndab ak ñaar ak sa pérob ginaar Mm. dañ ko toggal fukki nit ak ñaar mm. ak benn bon super super mbaam super gannaaw mm. mm-hmm. muy wecci mooy borom yoon moo wax ni xultu wayaa is darat umoosi wa fustu bil xamoosi fil xamoosi sama tey ju nekk day sama démb loola maam si Ibrahima Fall wan doomam yu baax ya di ko togg loolu yi fukki ndab ak ñaar ak fukki ak ginaar ba nga xamante ne nag ñëw nañu 1954 Serigne Mamadou Tall Fall wàcc ab liggéey ba dee nag ñoom ci sunu wàll Serigne Fallou Mbacké te kër gi di kërum ndigal da nga ma waxee léegi dama ne naa laaj ndigal fi kilifa gi dama joxe ndigal waaye ndigal waxtaan ci yoon Cheikh Fall nag moom sama liggéey. waaye bu kilifa gi toogee du ma wax ci dugub ndigalam lii nag sama digg Hizbut Tarqiyyah ko baax ki sëñ Fallu jox sëñ Alioune Fall ndigal ne ko ndogu yii ko baax ki santan sa ba Cheikh Ibrahima Fall jox naa la ndigal yow Serigne Assane Fall nga di ko togg ajjuma ba ajjuma ajjuma ji foofu la jóge 1954 ci ndigul Serigne Fallou Mbacké te boo mooy borom Touba Serigne Assane Fall daa di fonk baatu Sëriñ Fallu boobee ndogu yi togg nañ ko cere togg nañ ko ceeb na Moora Fall ta doomi sëñ Momar Taala Fall ne na ma te mën na maa jur ne na ma am na at moo xam te ni saa baay moo taala dugub amul ceeb amul aw sëb aw sëb la ñu soq wol sëb ñë mooñ ko cere togg ñeex ma teg ko ca kaw kon ndogu yi du lu ñu may mën a bàyyi na ndigul sëriñ bi cere sëb ceeb sëñ si Ngonda Fall mii yaay Fat Fall Fatim Këri nee na ma daaw ndogu yii ci jamono Sëñ Mourtada Fall ko togg ñaari fan cere di ko togg ñaari fan ceeb waaye Sëñ Assane Fall bi nga xamante ni sa borom dogal na Sëñ Fallu fa Mbàkke dugg ndigal te tëbb ko kattan mu di ko togg nag ñamu Tuuba ñamu Tuuba nag mooy yàpp rek ak mburu rek musu koo togg pomme de terre musu koo togg macaroni yàpp mburu loola da ko togg yët ko sëñ Fallou fëne di ko yët si Abdou Lahad fëne ba 1974 ca kees maa nga teew nag ne ko indi Touba ca laa bokk sëñ Abdou Lahad Touba benn lañ ko seet ba 1974 sëñ Assane Fall daal di yokku nag te la yokkoo daal di koy togg ñaar fukki ndab ak ñeent te lépp di ñam Touba mu yàpp mbur toggee ñaar fukki ndab yooyu ak ñen Serigne Assane Fall togg ko sëñ Sam Mbakke mu ndolo daa indi benn voiture ID ID benn voiture comme ni Mercedes mel boobu boobu euh, ministre président Senghor yi ID lañ daan war ID bu ñuul fa la fekk daal di wér benn mbubb bu bu mel nii waa Hizbut Tarqiyyah di sol am mbubbam mu mu mu werte werte bu mel nii mooy werte bu foncé gën a foncé nii saa bët bi laa ca teg sëñ Saam ni sëriñ ab sëriñ Assane Fall sëriñ Abdoulaye Dey Touba Touba Belel laa jóge ma fa moo ma jox mbuum ne ma na nga fekk sëriñ Assane Fall fa muy liggéey la sëriñ Touba ak Cheikh Fall bala faam boola nee ko mbuum sol naa ko fukki fan ak juróom ci weeru koor yi di jaamu sa borom nañ ko yëkkati ba ñëpp gis ko ku ci sa ba tege sa yaram araam la sawara sama sama bët bii naa ko ci teg Serigne Assane di jël mbu jox ko saa baay ma yor kaddu Serigne Assane moo tax si indi kaddu Fall maa ngi ko ñaan fan mu gudd wér ak ko tala ko man lii saa baay yoroon Serigne Assane ko mënul ma ma jéem rek mbu muy mbu gis texe sëñ Abdoulaye ne ko sol naa fukki fan ak juróom ci weeru koor yi da jaamu saa borom ku ci sa ba tege araama la sowara ci àjjuma yi sëriñ Assane Fall mu jële ci ndigal sëñ Fallu muy benn bal nga jëm ñaari picc ndigal lu jëkk la sëñ Tuubaa ko joxe woon Baay Fall yépp bokk sëñ Fallu ko fedd li ci sëriñ Assane Fall